أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المسلمون إن الله لم يخلقنا أبثا ولم يتركنا صدى أفحسبتم أنما خلقناكم أبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أيحسب الإنسان أن يترك صدى لا والله بل خلقنا خلقنا الله عز وجل لعبادته قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالله خلق الجن والإنس لكي يعبدوه ويوحدوه فيا خسارة من نسي أو تناسى أو جاهد الأمر الذي خلق من أجله mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu sunu xutba tey mooy mafasid kuratul qadam wa ma fiha min almahzurat wa muxaalafat mbokk yi suñu xutba mooy yàqute gi nga xam ne football indi na ko ci àdduna bi ak la ca nekk ca jullit war koo mooy tandiku ak yu wuuteeg islaam xam ngeen ne tey lu kenn mun ta wax ci àdduna bi football ab xërëm la asbaha annaas yaabuduna kuratul qadam nit ñi léegi dañuy jaamu football di jaamu bal bal sax da ngay dégg démb wala barki démb bi Sénégal toogee nga dégg ñu naan yàllaay football ji yàllaay football maa maanaa yàllaay football alil kuratul qadam ilah alil kuratul qadam ilah le dieu de football. Aujourd'hui, c'est pas avec nous, subhanallah. Yàlla ay football àndul ak nun tey waa Sénégal. Ah, ok. Tey li mooy sunu problème di jooy ci ñàkk a fayda jël alal réew mi pasar pasaree ko ci ay caaxaan da ngeen di yaakaar ne yàlla dina seetaan rongoñu miskin yi ci hôpital yi fajuwuñu rongoñ ñii ci taw yi mbënn mi di nangu seen kër yi ñu jël milliards yooyu def ko ci fo ngeen yàlla may leen ndam ndam bi ñëw fi yaakaar ngeen loolu yàlla dafa maandu yàlla buur bu maandu la jalla jalaaluhu wa azza kamaalu sunu borom binduñu pour fo lam yaxluquna abathan tey ñun ñëpp foo boobu loon gëm guddi ak bëccëg di ko jaamu concentré wu di nga gis nit concentré wu ci télévision wala ci match loo xam ne du ko concentré wu ci julli di nga gis nit jox yitte match lu mu dul jox alquran lu mu dul jox azkar lu mu dul jox alquranu yàlla bi islam doo ko jox mbokk jullit yi yàlla bindunu pour fo sunu borom wax na ci alquran da ngeen a yaakaar ne dama leen a bind pour fo ba ngeen yaakaar ne du ngeen del siwaat ci ñun borom bi ne a yaxsabu l insaanu an yutraka suda da ngeen yaakaar ne nit dañ koy bàyyi ni rek ci fo muy daw di ko def lu ko neex nekk ci ndànd foy foy di def lu la neex loolu ngeen yaakaar déedéet sunu borom dem ñu bind ci jubluwaay bu wér mooy ñun ak ginne pour ñu jaamu ko tey ñëpp fàtte nañ loolu wala ñu koy fàtte fàttalu tey noo ngi dund dund yéeféer yi wa hayatul kuffar wal mushrikin allazina yaakuluna wa yashrabun wa yamrahun bila mabda wala risala wala iman tey loolu la ñuy dund yaakaar ne dañoo war a dund dund yéeféer lekk naan pëccëxoo ci stade yi góor ak jigéen yi jaxasoo yàq waxtu yi dugg ci lu araam li gën a ruslu sax tey mooy waa Sénégal jàpp nañ ne xërëm rek moo leen di may dara xërëm li gën a ruslu mooy ay jàkka ay imaam ay kilifa diine ñooy toog ci jàkka naan nañ leen wàcc alquran yéen yaakaar ngeen ne alquran yàlla bi football moo tax mu jóg ak a ruslu ku toog di jàng alquran yow looy jàng alquran fan mars mars allahu akbar ak a ruslu kuy jàng alquran loo koy dee damay ñaan yàlla pour Sénégal gañe alxuraanu yàlla bi foo ngeen tax moo tax mu jóg bu fekkoon ne ku jàng alxuraan ñu gañe alxuraan bi fan la wàcc mak mak première match ñaar lañ ko dóor xelu leen xelu leen na xel yi ñëwaat ci nit ñi alxuraan makka la wàcc wala waa makka dama ñëwoon coupe du monde ñaar la leen dóor alxuraan du pour football kitaabun anzalnaahu ilayk li tuxrija annaas min azulumaati ila nuur kitaab téere la boo xam ne man yàlla subhaanahu wa taala anzalnaahu ilayk maa la ko jox yow Muhammad lu tax li tuxrija naas pour nga génne nit ñi nga génne leen dañoo dugg nga génne leen min azulumaat gis nga football nga ci azulumaat jamu bokkaale këram bidaa caaxaan zulumaat loolu yëpp zulumaat la yow pour Muhammad pour nga génne nit ñi ci loolu foo leen jëme ila nuur ci islaam foo leen jëme ci yàlla foo leen jëme ci maandute rusluwul tey dajaloo Sénégal problème yi nekkee ñaanu lu ñu yoolu yàlla rek leen ñu ko amul lu ñuy ñaan lu dul match nit war na rus sax ñaan yàlla même boo amoon du'aul mustajab war nga rus ya allah ya allah mu ne la labbayka ya abdi loo may dee nga naan ko match mbokk yi yàlla binduñu pour foo lekk ak naan cëppi cëppi kontaan amul benn principe amul benn risaala amul benn ngëm yàlla innama hiya hayatul bahaim wal an'am loolu dund bàyyi ma la loolu dund njaay àll la njaay àll mooy lekk di naan di sëy di cëppi cëppi ci mbedd dara waru ko amma nun jullit dañoo am risaala dañoo am mabadi dañoo am iman sunu borom subhanahu war nañu dépassé ci ay caaxaan ay fo ñii di xëm ñii di dee ñii di crise lan la match football ay fo caaxaan ay millions ay milliards di ko yàq li gën a ruslu mooy ay xërëm ay xërëm guddi ak bëccëg su ngeen ma joxee ay nen nen nen xanaa sax bu mu nga joxee boog xanaa nag waaye nen loo xam ne boo ko laalee mu pëccëxoo toj su ngeen ma joxee 700000 di ngeen indi coupe bi fii ana 700 ana nen ya doyul ci yéen mu leer na yéen njabar yàlla tabaraka wa taala nee na xanaa alquran waxul wala yuflihu saahiru haysu ata alquran wax na ba sonn waaye mal asaf ñun duñ déglu alquran suñu yoon lire ay journaux seetaan télé déglu ay caaxaankat déglu ay gisaanekat déglu ay borom xam-xam yoo xam ne dañoo alku jahannama lañ jëm li yonent bi doon wax ne innama axaafu alaykum a'immati almudillin fa ida waqa alaykum sayf lam yurfa ila yawmi alqiyama innama axaafu alaykum li ma ragal ci yéen ñun jullit li ma ragal ci yéen ñu ne ah mu ne al aimma almudillin borom xam-xam yuy réere laati ñooñu nga xam ne naan bu ngeen di dem bu leen woor fan la ñu gisee kuy football yàlla mu ne ko bul woor ci alxuraan kuy football ñu ne bul woor bul woor da ngay football compétition match la liggéey la bul woor fan ngeen gisee yéen ñi jàng laay laaj question bi fan ngeen gisee ci ñi nga xam ne dañoo am ngant waruñoo woor ñuy football ci ban téere lañ ko bind ndax mu ngi ci Buxaari mu ngi ci Muslim Abu Dawud Tirmizi Nisa Ibnu Maaja jël leen kutub yëpp ngeen xool même kutubu fiqi Malik Abu Hanifa Shafi Ahmad ndax kuy football football ngant la ci bañ a woor lu tol ne jaamu yàlla sahru Ramadan yàlla farataal ko yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyam ay borom xam-xam toog ci télé bi naan non ñooñu waruñu woor quoi parce que dañuy liggéey ñooñu waruñu woor ñu ne lu ñuy def ñu ne nañ génne fidiya ñooñu dañoo génn dañuy génne fidiya kan moo leen di génneel fidiya non réew mi leen di football loo kon réew mi na leen fayal allahu akbar boo jàngee islam ak nga xool Sénégal ñaari lislaam ngay gis lislaamu yàlla ak lislaamu waa Sénégal sharia yàlla sharia muhammad ak sharia waa Sénégal dañoo yor lu leen neex ñu ifta lu leen neex ñu def te kenn du wax bal guddi ak bëccëg lu musiba ngay dégg moo tax kuy caaxaan caaxaan rek mooy këpp sa kaw dañu laaj benn borom xam-xam benn waaye laaj ko téléphoné ko ne ko ndax ngénte caaxaan man mën naa cee lekk ngénte caaxaan am ngeen ngénte caaxaan mooy liir bu judduwul ci yoon waa ji téléphoné ko mu ne ko imam ndax ngénte caaxaan mën naa cee lekk mu ne ko ngénte caaxaan caaxaan kat mën na cee lekk bu fekkee caaxaan kat nga mën nga cee lekk mu nekk jawaab bu munaasib mbokk yi sunu boroom subhaanahu wa taala wax na ci alquran ne ëllëg danaa feesal safara ba mu fees ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس lu tax ëllëg borom bi nee na dinaa feesal safara ba mu fees del del del ay nit ak ay jinne min al jinn wal ins lu tax yow yàlla ngay def loolu ngay feesal lahum qulubun la yafqahuna biha dama leen may ay xol waaye duñ ci comprendre dara ay xol laa leen may waaye xol yi duñ ci xam dara lu jëm ci man yàlla tabaraka wa taala mbirum adduna rek mbirum caaxaan mbirum fo lamb football musique ay pes festival salaam ay football caaxaan rek yooyu donc gis ngeen festivalu salaam ay sabarak ay ba ay ay ay tëgg ndëndëg ay laa ilaha ilaa ngay gis ñu ne ñu ne la loolu festival bi pour lan la ay jullit la jullit di mën na ñëw nga gis kilifa genn wàllu kilifa diine yëpp ci ci ci caaxaan yooyu ñu toog nga gis imaam yeeg yenn it borom xam-xam yu alku yi ñooñu yàlla doon wax yonent bi doon wax a inna al aimma al mudillin borom xam-xam yu alku yooyu toog foofu soo waxee ñu koy daganal naan jàmm la ñuy woote jàmm la ñuy ñaan ñii tamit boo leen fekkee ñu jàng alxuraan tas kaamil bi du joxe jikku soo leen lan la ñu ne ndam la ñuy ñaan soo fekkee mbër mi di bëre ji ñu koy jàng alxuraan lan la ndam la ñuy ñaan ndam alxuraan yàlla bi ngeen defe ne làmb moo tax mu jóg ngeen defe ne football moo tax mu jóg ndax rusluwul tey ay jullit quatre-vingt-quinze pour cent musulman ñuy caaxaane diina yàlla bi di ko fowee di ko fowee di ko caaxaane ndax ay fo ndax yéen mën ngeen a muus ak waane ba football du caaxaan fan ngeen di dugal football ci islam ban buntu ngeen koy dugal ci ban fan fan ci ban ibadaat ngeen di dugal football fan fan ba tax bu bi dëkk bi di football jàkka yi vide kenn du julli kenn du dem jàkk kenn du julli ñëpp toog concentré wu ma paa yeeg mère yeeg sër yeeg tout fees del ku nekk la hawla wala quwwata illa billah foog nu delloo si xel yi xam ne yàlla tabaraka wa taala nee na ëllëg danaa leen feesal safara bam fees ñoo xam ne dama leen a may ay xol duñu xalaat wala hum ayunun laa yubsiruna biha ma may leen ay bët duñu gis suñu toogee bu xaaba yi di leen wax daf leen lii daf leen lii am na benn waay buñ ne yónnee na 700000 pour ñu jënd ay nen 700000 pour ñu jënd ay nen saraxe pour ñu gagné 700000 yooyu buñ ko indi woon ci hôpital buñ ko indi woon séddale ko malade yi séddale ko ñu bëgg a jënd ordonnance chaque jour jàkka joo dem ci biir Sénégal buñ jullee juma pare da leen yelwaane lay ordonnance wala chaque jour boo duggee ci dëkk bi di nga gis ku ñëw ne la dama am problème dama am nangam sama kër sama njaboot sama sama sept cent millions ak a neexoon ñu séddale leen xanaa xamu leen ne soo amee aajo jarul ngay dem ci xërëmkat demal nga julli ñaar rakk nga saraxe loolu ngay jël di ko defal même ku dee tey dëj yi ñuy def rey ay nag dajale ay wallahi alazim su fekkoon ne xaalisu nag boobu dañ koo jël ñu saraxel ko ku dee ceeb yooyu dañ koo jël ñu saraxel ko ko diwlin yooyu nangam nangam yooyu ñuy def dañ koo saraxel ku dee moo ëpp téeméeri yoon ak dajale di noos di lekk di fo Sénégal lépp fo la lépp caaxaan tout léegi nag fa la marché yi mujje ndax yàlla ndax réew mi dellu siwaat nit ñi liggéey ndax ñëpp démissionné woon nañ toog ci keppaaru télé yi werante xuloo match duñu football duñu liggéey après match kenn du liggéey ndax yàlla léegi nga ñu delluwaat ci tool yi suuf si tooy na foofu la match bu mag bi nekk nag foofu la ñu waroon dem nag léegi match ji delluwaat ci tool yi liggéey yi góorgóorlu mbokk yi yaakaar ngeen ne di ngeen toog fii di xërëm ay tubaab xërëm yi jàpp tubaab yi yaakaar ngeen ne di ngeen toog di ñaan ñun Sénégal lu ñuy foor foor xanaa di ñaan waa Màkka ñoo ñu gën a foor alxuraan bi foofu la wàcc ñooñu la njëkk a wulli ci compétition yi ana alxuraan ba ana ñaan yi ana amakilul muqaddasa fala kaaba ga nekk fala fala fala yooyu ay caaxaan la yàlla du ko seetaan yàlla yoonam nekkul ci caaxaan ak foo yàlla nee na maa xalaqna samawati wal ardi wa ma baynahuma laibin man binduma asamaan ak suuf pour foo ay foo da ngeen yaakaar ne yàlla da ci participer loolu ay fola ay caaxaan la yéen bu leen bu leen bu leen coupe du monde bu leen yeewul woon bu yàgg ba léegi dootu leen yeewooti keroog bañ dajeeg waa Turquie ñu naan mag ñu baax ñi ñoo fi nekk ñun ñoo leen gën a baax ay mag ñu wulli ñu xamu leen ay mag fële la ëppee mag yooyu ñoo ko doon jege kaaba gi ay saxaaba lañ fa suul mbir mi du ay problème mu mag du problème mu diine caaxaan la loolu nit ñi na nekk na nekk ci ñoom na leer nañ bàyyi foo nañ bàyyi caaxaan yàlla bind nu pour loolu kenn du fi dee yàlla mu ne la ñaata bii nga dugaloon malaakal mawti ci biir bàmmeel du la wax ñaara bii nga dugal abadan man rabbuk wa ma diinuk wa man nabiyuk wa ma kitaabuk bu ñu jël sport en tant que sport football en tant que sport di ko caaxaane ba fàtte suñu diine mbokk jullit yi suñu borom subhanahu wa taala lu leer la ñu wax lu ne weng loo xam ne war nañ ci teg bët bu baax borom bi tabaraka wa taala nee na ñooñu dama leen a may ay xol duñu comprendre ma dafa leen ay bët duñu gis walahum aadanun la yasmauna biha ulaika kal an'am bal hum adal ulaika humul ghafiluun borom bi tabaraka wa taala ne am tahsabu ndax da ngeen a yaakaar ne anna aksarahum yasma'uun aw yaqiluun borom bi nee na in hum illa kal an'am bal hum adal bal hum adallu sabila borom bi nee na da ngay yaakaar ne nit ñi ñu ëpp ci ñoom ñu ngi dégg wala ñu ngi gis waaye ñoog rabu àll yi ñooyam kal an'am borom bi tabaraka wa taala nee na wala sax ñoom ñoo gën a sànku rabu àll yi ibadallah wa kuratul qadam mimma futina bihi almalayin wa ashghala bihi almuslimun wa suriqa bihi alawqat wa yanbaghi an naqifa ma'aha waqafat tey football bii ñu bari fitna fekk na leen ci musiba fekk na leen ci waxuma sax ay équipe nationale waaye équipe tubaab yi nga xam ne sénégalais dañuy toog fii di xool équipe tubaab yi xoolal benn waay équipe am gagné muy zibilé di daw ci mbedd yi di yuuxu di tourner maillot bi mu sol di ko tourner ci loxoom yegg si ci ay xaritam ñu ne ko wóor na yàlla bëggoo Messi mu ne wallaay Sénégal maa fi bëgg na bëgg Messi ñu ne ko wallaay bëggoo ko boo ko bëggee dugal ci force bi mu tëb ne buñ cang ci biir force bi dugg ci biir force bi pour lan force bi nga xam ne ay dem àll ba ñoo ci nekk ah pour lan muy wane ne man damaa bëgg kooku allahu akbar kooku soo ko ne man bëggoo yàlla mu ne bëgg naa yàlla nga ni ko dugal fii mu ne la moom su ne woon bëgg naa yonent nga ni ko bëggoo yonent wallahi bëgg naa yonent nga ni ko dugal ci force bi boo wane ne bëgg naa yonent Xaalid ibn Walid keroog ba ko waa ji ne yow bëgg nga yonent bi mu ne wallahi kenn gënu ma koo bëgg mu ne ko boo bëggee yonent bi naanal poson bi mu ne cas poson bi poson bi ne bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah daal di koy naan ne tak tok allahu akbar da ko doon won ne rek man damaa bëgg yonent bi mu ne ko bu fekkee dëgg la naanal poson bi waaye xool Xaalid li mu liggéey ci lislaam fan la mujjee dee poson boobu roye ko de moo tax ngay dégg fii Sénégal ñu réer ñi dañ naan la sooy lekk dara bu ci poson nekkee soo bañee mu la la da ngay wax Xaalid ibnu Walid nga naan ko soo waxee Xaalid ibnu Walid poson bi du la rey parce que Xaalid dafa naanoon poson bee est-ce que loolu la allahu akbar mbokk jullit yi lii di football bii ñu ñu topp di ko jaamu daf ko yàlla ñu bëri mu fitnaal neel ñu bëri soxla woo ko ci ay jullit ñu sàcc ci ay heure yu bare bare bare bare bare ci ay jullit sàcc seen i heure waxuma sax ay équipe ay équipe yu dee ay nawetaan fi ngay gis ay jullit nawetaan kese ay jullit léegi mu commencé nga gis ay jullit ay waxtu ay waxtu waxtu allahu akbar ci ay stade di yuux ci loo xam ne amul bopp amul geen amul fulla amul faayda du indil réew mi njëriñ du indil diine bi njëriñ dara football yi ñuy def fii du indil réew mi tus du indil diine bi dara lu dul yàq jullit yi yàq seeni pas-pas mbokk jullit yi dañ cee war a taxaw ay taxawaay yoo xam ne balaa muy nekk ci ñun xërëm balaa muy yàq sunu adduna ak sunu alaxira isa kunta tajri wara al kura wa tajzibuka shaasha al mubhira wa xalfaka naadin wa alfu sadiq tabaaru ala natti fi sarra fataatu rabbul ibaadi mata wa qul li mata xissatul axira mbokk jullit yi bu fekkee da ngay daw ci ginnaaw bal da ngay daw ci ginnaaw bal di ko jaamu wala nga toog ci kanamu télé di seetaan lu ëpp sa ay millions yi nit nekk sa ginnaaw ay fukki fukki xarit ay junni junni xarit di la tàccu ñii di la yuuxu ñii di valise kañ ngay jaamu yàlla fa mata fa mata taatu rabbul ibad kañ la ñuy jaamu borom jaam ñi kon kañ la bu marché bi tasee kañ ngay gis ku toog di seetaan marché seetaan fukki marché ci benn waxtu seetaan ko ba pare looy def jóg dajale tisbaar ak takkusaan julli allahu akbar wala nga boole timis ak gee julli loolu léegi lan la wala sax ñooñu sax ñooñu baax ñi ñeneen ñoom seen yoon nekk ci إخوة الإيمان فمن المهاذير الشرعية في الكرة الانشغال التام بها حيث تكون هي حياة الإنسان يستيقظ فيقرأ عنها ثم يذهب ليلعب بنفسه ثم يعود ليتابع مبادرة li ñu war a moytandiku charia di ñu ko moytandikul mooy ñu ëpp ci ñun soxlawoo gi ñu soxloo football bi doomu aadama fi mu yeewoo li mu njëkk a xool ci information match su tey yi allah hawla wala quwata illa billah li muy njëkk a xool balaa julli match li muy njëkk a xool résultat li muy njëkk a def toog di commenté allahu akbar ñaata waxtu toog seetaan match bi fee ñu toog di commenté ñaata waxtu ñaata ci ñu lu ñu yàq buñ jógee jël suñu alal yóbbul ko xërëmkat yi pour ñu xërëm pour ñu gagné ñi mel ne wala kaana bu jigéen boobu ki ne ndoom xaw ma ñëpp tey di ko déglu journaliste yi daw këram bu nit ñi gagné daw dem këram di ko may succès te xamu leen ne ndeysaan xamu leen yàlla inna allaha la yumlil abd hatta iza axazahu la yuflih borom bi tabaraka wa taala chaque jour daf ñuy wan boppam chaque jour daf ñuy wan ay pexeem yàlla day ni ngay ni ngay meebe meeb meeb da ngay meebe jën boo koy jàpp wala ngay meeb jinax boo koy jàpp defal ko ab toq lekk sànni ko ko mu lekk daw ñëwaat dafa ne neex dafa neex loolu kese la yàlla defal bu xaaba yi nga seetaan gis dara ñii di génne ay chiffre ñii naan nangam ak nangam ñii naan bu ngeen jàngee saaru sàngam ñii naan bu ngeen defee nangam lii moo leen di wan ne buñ leen waxoon tey dem leen ngeen sulli néewu nangam dinañ indi ko bi ñu dem sulli ji ko. parce que nit ñi dañuy yegg foo xam ne loo leen wax def leen ko pour ngeen am dara ñu def ko loolu nag su boobaa day nekk musiba ci ñun ndax dañuy génn cadre sport bu ñu nekkoon léegi xërëm lañ jëm. ba kañ ci ak ak ak mu xaalafaat yi nekk ci football yëpp ngeen xam ko génne awra yi ci nekk sànq waxtu yi jaxase góor ak jigéen dekkilaat jaamu yàlla yéeféer yi ci yuuxu yeeg walis yi violence yi ci nekk ngeen xam lépp ak yàq alal gi ci nekk romb li ñu war a def ñaata yoon fi lañ jooy ne radiothérapie xaw ma amu fi ci ñu ñu feebar ñoo xam dañ leen war a jëndal ay rajo ñuy dee ñaata ba léegi jënduñu rajo yi suñu nee nangam bi équipe nationale da kaa soxla ñu jël milliards yooyu ak millions yooyu jàllale leen ko ñu ñuy seetaan miskin yeeg ñi feebar di dee yàlla nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp yàlla nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah ibadallah fa min almahzurat alsharciya ataassub almazmum والتداعي للأندية وإثارة النعارات بين المشجعين فتكون دعوى الجاهلية منتن يتصايحون ويتساجرون بعد المبادرة ويتقاذفون بالحجارات mbokk jullit yi waxuma sax fële day sori waaye ñun di ñii rek nga xam ne tey ñoo dëkk ak stade bi keppaar gii ci musiba yi ci nekk ci boddi kontante ci xëccoo ci xeex ci violence ci sànnantey xeer tojantey bopp tamantey dëmm guddi ak bëccëg ñuy dund loolu loolu naka la ab julit mën a taxawee di ko daganal naka loo xam ne amul benn njëriñ ci àdduna amul njëriñ alaxira lu dul caaxaan tubaab yi di nu nax tëkk takk buum sunu bakkan yi luñ ñu wax ñu def ko topp leen guddi ak bëccëg lu nekk rek lu ñu indi rek ñu daal dem def ko lu ñu indi ñu def ko ak façon buñ koy indee nii lañ koy de- defee li ci gën a doy waar mooy règlement yi ñu ciy tëral yi ci ëpp mu xaalafa lil islam dafa génn sharia xamu leen mosu leen gis fenn match football jot ñuy football ba tàkkusaan jot bilaal bi daal di ñëw dañu arrêté match bi julli loolu ban stade ngeen ko gis dañuy jéem a nax yàlla déedéet bu ma paree dinaa julli wala bu ñu mitaan yi nga gis gars yi dem jàkk yi sax yenn yenn saa yi stade yi ñu def wax benn jàkk bu ndaw pour ñenn non nañ fi la ñuy naxee yàlla dañ bàyyi caaxaan ibadallah ne ndellu ci dëgg yàlla bi tabaraka wa taala nañu xam ne fo tabaxul am réew caaxaan taxawulul am réew am réew buñ buggee dem ci kanam dañuy takku dëgëral seen pas-pas ca yàlla nangoo liggéey bàyyi fo bàyyi caaxaan mun leen wax tappale jaar ko ci ay caaxaan ba indi fi ay coupe du coupe d'Afrique du coupe du monde du coupe d'Afrique du coupe du monde nan liggéeyal sunu bopp jaamu sunu borom génn ci caaxaan yi ñii bëggu ñoo dugal ñu yëg ne ëllëg mënuñoo jam a am jàmmi àddina am jàmmi àllaaxira lu dul jaamu yàlla rek génn ci caaxaan yi mun leen am benn xërëmkat bu leen xërëmal ba coupe ñëw fii ak ku ngeen mën a indi nag ci xërëmkat ak ku ngeen mën a dem ak ku mën a ñaan bu yaboo ngeen dugg ci xalifa bu nekk ngeen ne ko ñaanal caaxaan kese la alxuraan caaxaan taxu koo jóg ay ñaan du fi indi kub am na ñu ñuy dàq ñaan ñaan nañ ba sonn ñooñu lañ njëkk a wulli nañu nekk ay nit jaamu sunu boroom bàyyi ay fo mbokk julit yi nañ dëgëral sunu pas-pas nañ yëg ne alwala wal bara yàlla moo ko moom far ak bëgg yàlla moo ko moom far ak bëgg bëgg ab yéeféer lu raw ni nga bëggee Seydina Mohamed am na ci Sénégal ñoo xam ne ni ñu bëggee Messi bëggee wuñ ko yonent Yàlla Mohamed am na ci Sénégal laa wax ñu bëgg Messi lu raw li ñu bëggee yonent Yàlla Mohamed loolu fu ñu ko teg te ay jullit bëgg ay caaxaankat bëgg ay fokat ñoo xam ne duñ tekkiwuñu dara ci àdduna lu dul fo nga bëgg leen lu raw ni nga bëggee yàlla wa min annaas man yattaxis min dunillahi andaadan yuhibbunahum kaw billah am na ñoo xam ne ni ñu bëgg yéeféer yooyu moo gën a raw ni ñu bëggee yàlla dañ delloo suñu xel ñu xam ne yi ay caaxaan la waruñ cee xeex ñun suñu bopp waruñ cee xuloo da ngay gis kër gu tas ndax marche kër gu tas démb ñaari nit ñu doon xeex barki démb ñaar kii dafa faral jour bi kii faral jour bi jour bi moo yàq marché bi jour bi yàq marché bi ñoom ñaar ñu xeex tojante ay bopp ba dem hôpital nga fe loolu jaadu na ci ay jullit ñu bokk kër bokk ndey ak baay nga gis jëkkër ak jabar di xeex ndax marche papa ak doom am na équipe boo xam ne loolu du match coupe du monde sax match kii yii rek papa ji faral équipe bi doom ji faral équipe bi équipe bu papa ji gagné papa ji di di tooñ xale bi xale bi kalashnikov papa ji la jëli ne ko karaj kaj su papa ji gaawul woon jàpp yóbbu ko ci suuf musiba àllaaxira am loolu fuñ ko teg ci ay caaxaan ah ñi doon def commentaire ci ci ci image boobu yëpp ñi doon def commentaire dañu ne baay ji lañ war a jàpp baay ji lañ war a jàpp baay ji lañ war a jàpp baay bii du baay du du du baay du modèle baay waaye buñ jàppee baay ji ndax baay ji dañ koo tooñ rek ndax dañ koo gëm loolu ba mu gëm ko mu gëm loo ko doomam ña leen indi loolu ba ñu gëm loolu ba ñu gëm match yooyu nga xam ne waxuma tey xoolal Sénégal tey xoolal carte gi ci football bi match européen yi xoolal nuñ ko commande di nga gis tey ci ñun jullit yi fii koo xam ne équipe yooyu ni nga comprendre équipe yi xamoo ko sahabatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam am ñoo xam ne boo leen waxoon dafa leen ma classement xaw ma Liverpool la xaw ma dogal leen ma classement bi dañuy dóor ba dóor remplaçant yi boo leen ne limal leen ma juróomi sahaba ñu ne la Moussa Diop ak Koumba Ndiaye dugal la ñun ci sahaba yi billahi wallahi taala fuñ jëm dañu delloo si suñu xel nun ay jullit lënd alaxira duñ ñu fa laaj coupe du monde duñ ñu laaj coupe d'Afrique duñ ñu laaj benn jour wallahi ku ci dugg bàmmeel di nga xam ne ay ay caaxaan la jarul indil sa bopp ay problème jarul indil dëkk bi ay problème nañ nekk ay jullit jaamu yàlla xam ne nun ay jullit lënd ixwatal iman bàyyi xel suñu bopp xam ne caaxaan yi ñu bëgg a dugal ñun waruñ cee dugg piège yi ñu bëgg a dugal waruñu koo nangu nañu xam ne bëgg ak far ak bañ yàllaa ko moom alwala wal bara wal hubb wal bugd loolu fillah la war a doon waaye warul nekk ni ci bànneexu bakkan bañ nit ngir yàlla bëgg nit ngir yàlla loolu moo war far ak nit ngir yàlla waaye nga bañ nit ngir équipe nga mere ko ngir équipe loolu ab jullit waru ko def mbokk jullit yi li gën a doy waar mooy bëgg bi ñu bëgg tey yenn jooru yéeféer yi bay sol seeni mayo yi te ku xool mayo yi dina ci gis ab croix yenn saa yi sax nga gis ku ko indi ci jàkk di ko jullee di nga ci gis ab croix nii ci poche bi ñu def ko fi wala ci bande bi ñu def ko fi ab croix moo ci nekk ab jullit naka lay jëlee croix di ko dugal ci jàkk wala naka ngay kàbbare ci kanam yàlla naan allahu akbar ab croix mu ngi ci sab dënn ba ci mayo yi na ngeen ci bàyyi xel bu baax yi am nit moom araam naa jullee waxuma laak nag yi am ay croix loolu nañ ci bàyyi xel ñu góorgóorlu nekk ay jullit jaamu suñu boroom xam ne ëllëg yowmal qiyaam yii caaxaan yi am fii ci dëkk bi kenn duñ ko fa laaj ñu mooy tandiku xërëmkat yi mooy tandiku buxaaba yi mooy tandiku ñi nga xam ne seeni poos la ñuy dundal ak alal la ñu bëgg gis naa nangam gis naa lii gis naa lii gisuñu dara yàlla nee na njabarkat du texe wala yuflihu sahir haysu ata yàlla nee na njabarkat yéefér la wa ma kafara suleyman walakinna shayatin kafaru yuallimuna annasa sihra wa ma unzila ala almalakayn bibabila haruta wa marut wa ma yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna fala fala takfur kon ku koy jàng yéefér la innama nahnu fitna fala takfur ak njabar ak kéeféer la waaye dañuy nax nit ñi ay rawaan la yor ci alxuraan laay ñaan ay rab la ay kii la yëpp jinde la yëpp seytaane la benn du ci dëgg ki yor ay rawaan jinne la ki yor ay rab jinne la ki naan damay ñaan ci alxuraan ay jinne la yor ñoom ñëpp ay jinne lañ yor wallahi allazi la ilaha illa hu ñoom ñëpp ay jinne lañ yor waaw jinne nag xam ngeen fu muy mujjee doomu aadama moo tax chaque jour nga gis ay fen kese la parce que jinne yàlla wax ñu ne xamul kumpa yàlla moo xam kumpa aduna ak asamaan ak suuf kenn xamu fi kumpa ku dul yàlla qul laa yaalamu alxayba man fi samawati wal ard illa allah loolu yàlla moo ko wax aalimu alxaybi fala yuzhir ala ahad illa man irtada min rasuli nan nekk ay julit allahuma arina alhaqa haqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba allahuma ya musabbitu alqulub sabbit qulubana ala taatik allahuma fanasaluk an taruddana ila dinik maradan jamila allahuma ahsin aqibatana fi الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا